Thank uh... you. alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki ami internet yi nga xamanteni ño baxo ak baye bàyyi xel liggéeyub yalla bu sel bi nga xamanteni papnya ak ekibam ñu ngi ci muy guddii mba muy beccëk muy taw mba muy nacc liñu liñu suñu yene sunu rek moy neew ju doole yi rawatina ñi nga xamanteni dañoo febar ñu gis seen bop ci tabaski gi nga xamanteni ci lañu jëm ginnaaw si loolu nag wax dëgg yàlla xam ngeen ni at bu yàlla sàkk dafa am ñoo xamante ni ñoom laay liggéeyal ci wàllu koor gi social tabaski social mbooleem social boo xamante ni maa ngi ciy yëngu waaye ñoo ñu ren dañoo orienté wu dem ci beneen réewu Afrique loolu moo tax waaye ku ànd ak yàlla doo daanu te ndeem suñ borom lañuy liggéeyal te li ñuy liggéey amul benn tappale amul benn caaxaan lu dul dëgg ak njub te yàlla rek tax ñoo am initiative créer benn groupe whatsapp tuddee ko groupe whatsapp tabaski social 2023 biñ ci dugalee ñoo xamante ni yàgg nañoo jëflante ak ñun ci wàllu ndimbal dimbali jaamu bi yàlla te yàlla rek tax ñu dugal ci lu tolloog presque 200 personnes yoo xamante ni ñeenti nit rek ñoo nekk Sénégal groupe boobu nag wax dëgg yàlla ñoo ñu apprécier liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ba tax wax dëgg yàlla ñu daal di tàmbalee jaayante. groupe boobu deux cent et quelques personnes ñoo ci nekk mais fi may waxee ak yéen quarante quatre personnes ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo joxe gum li nga xamante ni moom mooy seen participation ci tabaski sociale 2023 bi loolu nag ba ñu demee foofee ca àll ba jënd nañ wax dëgg yàlla li xar yi di metti metti metti li xar yi di cher cher cher cher wax dëgg yàlla fexe nañoo fexe fexe jihaat jaayanteeg yàlla sunu borom dem nañ fi nga xamanteni moy mooy Daara Jolof wax deug yàlla ay xar yo xamanteni amana ay xar yu ndaw la ñu lay wax ay 140000 amul bàyyi ñu xamni dal Sénégal nak ndekete amna crise Sénégal nak mi ngi ci ay jafe-jafe yo xamni buñ démé ba xar yi nga xamanteni ay 50000 wala 70000 la daan jar ñu dem ba ngay dégg ay 140000 bo amul doolaal wax dëgg yàlla néew ju doole yi ñoo koy gën a yëg te néew ju doole yi ñooy gën a yëg mettitu jamono bi fi mu toll nii loolu nag moo sabab yàlla dimbali ñu wërsëgal ñu bi nu ñëwee bët Touba bi ñuy dellu si wax dëgg yàlla ñu gis fa ay xar yu baax ñu ramasse xar yi wax dëgg yàlla ci cent mille francs xar bu ci nekk ndax am na koo xamante ni ñun ñoo ko indaaleel xaram waaye bi ñuy ñëw moom comme xar yi ñu jënd moom la jënd te mu ngi ko jëndee cent quarante mille wax dëgg yàlla mu nekk mu nekk loo xamante ni lu yéeme la mais ñun ñu ni tabaski social 2023 bi ñan lañ ko jaglel moy ñi nga xamanteni dañu danoo dañ dan am di teral sen njabot dañ dan am di sutural sen njabot dañ dan am di xottil sen njabot dañ dan am di tabaskeendoo ak sen njabot tay yalla suñu borom natulen len teural len ci ay tawat yo xamanteni ni dag nañ sen tank ñi am nañ ay cancer du sein ñi am nañ ay jafe-jafe ñi ño daan liggéey doon dimbali sen yaay tay suñu borom tek len ay tawat yo xamanteni da nga yéemu ci yàlla ñoo ñu lañ jagleel tabaski 2023 ngir yóbbul leen xar yi bett leen kuñ ci jox xar danañ la ci tegal fukki junni bu dee góor nga ñu tegal la ci benn yére boo jullee wax dëgg yàlla ki nga xamante ni moom la ñuy njëkk a jox ci xéewal yi mooy ki nga xamante ni mooy sunu maam Mbay ture mi nga xamante ni moo xamul dara ci àdduna mu tëdd feebar 15 ans yoo xamante ni feebar bi ko dal du lenn lu dul crise épilepsie bu koy daaneel wax dëgg yàlla mooy sunu maam ji doon wax naan xamul président bi xamul dara ci Sénégal xamul WhatsApp xamul dara fa dëgg yàlla ñu fas yéene ko bett ak xéewal tey ci moom la ñuy njëkkee. liggéey bii nag li ma bëgg man Pape Niang ànd ceeg équipe bi ma àndal sunu bëgg-bëgg mooy danoo bëgg balaa tabaski gee si ndax tey jii la 21 juin bis bu nekk dinañ joxe ñaari xar. ñaan nañu yàlla bu ngeen seetaanee vidéo bii képp koo xamante ni am nga xar boo bëgg a jaamoo yàlla Pape Niang nee na indil ma xar boobu noonu ma joxal la ko ku ko yittewoo koo xamante ni da daan am di dimbali njabootam tey suñ borom nattu ko amut lu mu lekk amul lu mu fajoo njabootam tiim ko mu jaaxle xamul fan la jëm ak ñoom kooku ku ko bett ak xéwal sunu borom dina la bett ak mbooleemi xéwal ak i ngëneel kon woo nañ ci defkatu lu baax yi woo nañ ci jaamukatu yàlla yi dërëm bul yéem sa ñaat téeméer bul xeeb sa dërëm bul yéem sa junni jàpp ci te yàlla rek tax am na ñoo xamante ni xam naa ni du ñu am xar waaye bu amul xar sax ñu am lu ñu teg seen loxo moo tax may jaajëfal ak a jaaraamaal waa ànd taxawu ñu wéré di Cincinnati Ohio ñoom Serigne Moustapha kebe ñoom soxna Thioye Fall ñoom soxna Bintu Diouf ak mboolem koo xamante ni rek mu ngi foofu ca groupe boobu di ànd taxawu ñu wéré di Cincinnati Ohio jàpp nañ ci bis bu baax a baax ndax yëkkati nañ lu tolloog six cent mille francs teg ko sama loxo ni ma pap ku amul xar ta bu amul xar amul xotti maa ngi leen di maa ngi ñu ngi bëggoon même su dee juróomi xar la sax nga jënd ko dem yóbbul leen ko incha allahu rabbul alamin noonee ñu ko bëggee noonu lañ koy defee ànd ci ak wax dëgg yàlla waa groupe bi nga xamante ni bañ ko créé ak léegi matul fukki fan ñu liggéey liggéey bu rëy bi wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla groupe boobu dund màgg doon groupe boo xamante ni dana wéy di dox ci social dana doon groupe boo xamante ni dana wéy di jàppale néew ju doole yi xar yi nag ñuy yóbbu ñi nga xamante ni ñoom lañ koy jébbal loolu dañ leen ko ñaan niñ leen ko ñaanee woon ci biir koor gi ñi nga xamante ni daan nañ leen génne vidéo ngir seeni feebar wér ñooñu du ñu nëbb seen kanam parce que xës nañoo feeñ ci réseaux sociaux yi ba pare mais ñi ñuy nëbb seen kanam mooy ñoo xamante ni musuñu leen a jox musuñu leen a jox xéewal wala buñ leen ko joxee tamit jamono ba leen bañ leen koy jox yàgg na joxuñu joxuñu leen wax dëgg yàlla dinañ dem ci kaa yoo xamante ni yow miy seetaan vidéo bi leer na ma leerug yàlla ni borom xolub yërmande ga vidéo bi du la romb te lamboo sa poos def ci ngir dimbali sa beneen morom bu mel ni kooku ndax wax dëgg yàlla am na vidéo boo xamante ni def naa ko bu ndaw képp kuy seetaan vidéo yi di nga xam ni àdduna daal yàlla rek moom mooy suñu borom am na ñoo xamante ni daaw ñu ngi ko doon defal seen i njaboot ren mënatuñ mënuñu dara lépp lu ñu def dañ leen koo defal seen i njaboot tiim leen ñu am gàcce ngir lan tawat bi leen yàlla teg yëkkati kàddu gi jébbal ko Baye Sewru ci tabaski social 2023 nan la ñu fas yéene liggéeyee nu ñuy def ba satisfaire nit ñi ba kuñ àgg ci moom bu ñu fa jugee xolam sedd xolu ami internet yi sedd ñi yëkkati seen ñàq teg ko ci sama loxo ñoom tamit seen xol sedd Baye Sewru santat yalla bu baakha baax nuyu mbolam mbokki am internet wo xam yang yaa ci ginaaw bay pap di ko ci liggéeyu yalla bu kayo bu am solo bi muy def ta yalla rek tax euh, tabaski yi bay pap jot defagum bima ci gëna marqué moy tabaski 2023 ndax dafa nek tabaski bo xamni ni wax deug yalla chaque jour ñi ngi deg ci rajo yeeg télé yi xar amul xar amul ndax xar dina am waye bu xar amay ndax nit ñi dinañ am ñeug guñ ko jëndé ñi ko am rek ren dana metti lolu ci rawati rawatina ñi nga xamanteni nyoya kane yaakaar sax dinañ tabaski bay pap nar leen a bett ak ay xar surprise te yàlla rek tax damay wax ne wax dëgg yàlla li Baye Pape doon wax léegi nii rek jaamu yàlla ci jaamam ñi bi Baye Pape di woote damaa jàpp ni ndimbal la ci doomu nga xamante yaa ngi yëkkati sa ñaq di ko ci def damaa wax ne liggéey bi ni ko Baye As di waxee ku ci doon def sa ñaq sax te muy ngistal yàlla dina la ko fay wallahi azim ndax ñi nga xamante ni ñoom lañ fas yéene yëkkati xar yi jox leen ko tey boo koo ci bett daanaka bu fekkonte ni du lu ko bàyyi pap ñaa dimbali ci xarum tabaski fii ba tabaski bi di jot du nelaw guddi du nelaw bëccëg ndax di xalaat fan laay jëlee xar kooku boo ko woyofalee mu tàmbali tey nekk guddi gu jëkk mu nar koo nelaw ndax xel mu dal ndax ginnaaw am na xar la ca des lépp mën na koo jaayante ak yàlla kon daal tabaskeem dina ñoŋ waaye li jara sant yàlla rek mooy ñaata doomu aadama ñoo ko feete woon daaw ci weeru ci bisub tabaski bi ñii dem dund ko ci saayir ñii jël seen alal def ko ci lu yàlla gërëmul te ñu ci bari ci ñu am na ñoo xam ne ren mi ngi leen fekk ci seen ay biir bàmmeel ñii mi ngi leen fekk ci biir kaso yi ñii ñi ngi ci lalu hôpital yi moo tax daal lépp loo xamante ni rek yàlla mën loo na ko waay na ko labal yàlla gaaw ndax ñun ñii fi taxaw ren di ko wax xamuñu déwén fan la ñuy fekk yàlla nañu fekk rek ci ngërmande yàlla suñu borom waaye ñuy woo ñëpp nag ci képp koo xamante ne yaa ngi seetaan vidéo damay wax ne fukki sénégalais bu ku nek joxé ñaar témer rek mu mat sax bon bu dé sobla la wala pomme terre yow mi sétane vidéo bi bul né awma ma xar awma luma jëndé xar buma jox bay pap ñaa dédét nañu and dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm mu mat ñaar wala ñetti xar ñu dem bét yenen jaamu yàlla te jëmmi yalla rek tax tabaski social 2023 ak bay pap ñaa ci ak borom xolu yërmande yi té yalla rek tax yalla nañ ci am lu kawe suñu jor jërë jëf. alhamdullilah alhamdullilah rabbil alamin ñu dellu santaat yàlla bu baax a baax di wax rek fii sóoru daana lay fa lay commencé di woo ñëpp ñu ñëw participer ndax xam eh, nañ ne jamono métti na borom kër yi jaaxle nañu waaye nag ak ami internet yi xam nañ ne ak bonne volonté yi nga xamante ne ñooy suivre eh, vidéo bu ñu mën a dugal xam nañ ne gina ñeneen ñi na seen xel dal ndax ginañ leen jàppale te yàlla tax ndax tey ji tawat rek dafa yéeme saka nag njaboot gi wër la ku nekk di xaax xaax euh, ñuy ñaan ñëpp rek ñu def ci seen ñaqte ngir jëmi yàlla. waa ñuy santaat yàlla bu baax ci jëf ji di am mbégte ci bon volonté yi nga xamante ne ñoo jàppalewaat Baye Pape ci lii tey am mbégte ci moom mi nga xamante ne moom lañ jàppalewaat ci lii ndax mën mënoon nañ koo jox xaalis mu dem jënd juróomi xar ñëw séddale ko. bu boobaat ñi ko ko jox dañuy jàpp ne rek loolu lañu ko jox ndax ñuy joxe te yëgoowuñ loo def ku nekk day jàpp ne la ma joxe doo nga fa nekk moo tax kon bu ko defoon mennum xar tax joxe ko kenn rek day jàpp ne li ma joxe la jënde xar mi waaye li ñu ko jox lépp da leen a war ne li ngeen ma jox lépp dajale naa ko fexe ba am ci nombre bii te bu sañoon bala balaa tabaski gi mu amaan nombre bu ëpp bii ndax démb fii laa toog di waxtaan ak yaa njéemi mu ne ma bu ngeen joxe woon ba pare bu ngeen duyoon camp bi ak xar ba mu fees ngeen joxe ko du am ñeneen ñu toll noonu ñu amut te wallaahi wax na dëgg te loolu bu fekkoon ne yeneen baay Pape ñaa ngi ci réew mi di def nii muy def yaakaar naa loolu dana saafarawu kon bu ko defee gàcce ngaa laa ma mook ñii muy àndal ci liggéey bi at mu jot ren ji ku nekk xam na ne ndakaaru xar amu fi ndax daara jolof boo fa mënee dem ñu lay jaay mbote mu ndaw mille 000 140 000 nga dugg daara jolof ba génn mënoo faa am sa xar keroog yendu nan daara jolof 10 heures ba 18 heures te mënuñoo am xar fu ne dugg nañ fa biir Daara Jolof rek daw nañ fa lu tollu ni fi ak Daara Jolof ci biir Daara Jolof di daw di wër fu ne ñu jëm fa boo ko waxee mu ne mënumaa dellu te jaamu yàlla yóbbu lu ma leen xar yàlla dimbale ko xolam bu rafet bëgg-bëggam ak lu muy yéene jaam ñi tax bi mu ñëwee ba tuubaa yàlla dajale ko fa ak ay xar ba mu mën koo jënd teg ko ci oto fay oto bi mu ñëw loolu koo xamante ni yittee jaam ñi yitteelu la doo ko am kon wax dëgg yàlla ku ci daan jàpp yokkal ku ci jàpp gutoon te gis ko jàppal li Baye Sawru wax dëgg la sa 1000 francs yi ngi ciy dugal buñ ci jëndee kiloob soble sax bokk nga ci ñi defar tabaski gi tey bala ngaa xam loolu rek nga nekk boroom kër amagoom xar li Baye Sawru wax dëgg la am na ko am tey bu jotee ci xar mi suba day biddanti ndax yaakaaroon na ne tabaski gii di ñëw nii yàpp sax du ko ci am kon nag ñi koy jàppale nanu gën a yokk ñi jàpp gutoon na nanu jàpp lii nag dafa wane tey ju ne day gàcceel démb ndax man seede naa ne daaw amutoon fukki xar juróom yu mat te ren lijjanti na ba am lu ko ëpp kon li muy liggéey nii wallaahi li maam Cheikh Rafal doon wax rek nañu dem ba yàlla fay wax bàyyi jëf yàlla du fay wax mukk bàyyi jëf nekkal ci jëf ji nag te ba wax ji comme toujours yaa ngi ci jëf ji ñu kon ne di wax yow continuer te dem te xam ne yàlla mi tax ngay jëf saa boo waree jëf dina la jox loo jëfee te lii da koo firndeel kon fa mu jëm xam na ko ñeme na fa yal na koy yàlla woyofalal yan bi ba fa mu bëgg a yegg mu yegg fa jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bay As jaajëfal nañ mbollem ko xamanteni ni équipe la buñu andal waye duñu tejj kaddu yi te ñaanuñu yalla suñu borom sama mak bu goor bi di mbay euh, Mamadou Niang balaa xéewal bala ñuy joxe bala muy jeex yalla nañu ko yàlla delloosil te dina nu metti lool dina dis ci ñun lool tabaski sans mbay loolu mom wax deug yalla dina don lu yeme waye nak di wax ni kep ko xamanteni da nga am sa borom keur bo xamanteni dafa teud tawat ta daan jël ñakam daan sutural ak njabotam tay sunu borom tëral ko ndax tawat pap ñaan neena na ci numéro bobu di 77 756 39 26 bu la ci yalla bolé dinañ la jébbal sa xar ak sa fukki junni ngir siggil sa njabot ngir ñu xamni tawat bi dal seen baay yàlla mi mi ko ko teg yàlla moomu moo ko teral ngir maanaam siggil ko ci kanam njabootam te képp ku bett jaamub yàlla ak xéewal sunu borom dana la bett xéewal goo xam ni da nga naan lii fan la jóge te ni ñu fas yéenee bett leen ak ay xéwal képp ku ci tabal sa ñaq yal na la yàlla suñu borom bett ak xéwal muy wér muy sutura muy teraanga muy jàmm ju wér muy addun muy muy jàmm muy mbooleem loo xamante ni ngënee lu suñu borom la yal na ko yàlla suñu borom wàccee ci képp koo xamante ni def na ci mbaa mu amoon yéeney def mbaa mu bëggoon a def te mënta def ñu ngi koy ñaanal balaa déwén yal na mën ba def te yàlla rek tax Sénégal fii bu ñu tuddee social lan mooy social kan mooy doxal social kan moo xam social du ñu dem fenn fudul ñëw ci Pape Niang social